mbokki téléspectateur seen émission bi yëngatu ci wàllum cosaan di ci di amee ci seen site 221 people ñu leen dalal jàmm ci seen émission seen émission tey jii di dalal beneen chef ba nga xamante ni moom mu yëngatu ci wàllum médecine islamique waaye itam médecine traditionnelle donc ci de toute manière dinañ waxtaane ak moom loolu yëpp lan moo ko wuutale ak yeneen yi ki ci dalal di Ibrahima Khalil Niane Ibrahima Khalil Niane di doom ci Ibrahima ci di doom ci imam Madiara Niane donc ñu xam ko bu baax a baax ci fajum cosaan waaye fajum cosaan ba nga xamante ni lislaam daganal na ko Ibrahima itam am fii euh, benn cabinet buy yëngatu ci wàllum médecine islamique waaye itam médecine traditionnelle donc loolu ñu nar ko waxtaanee ak moom ci lu gën a euh, yaatu bu si tuuti Ibrahima maa ngi lay dalal jàmm. bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi maa ngi nuyu mbokk yëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu kilifay diine yi di nuyu kilifay aada yi mboolem mbokk internet yi seetaan 221 eh, people ñu ngi leen di nuyu rawatina si mbokk yi nekk bitim réew vraiment ñu ngi leen di nuyu ñoom tamit fu ñu toll ñu di ñu topp di ñu safoo di ñu saafoo tamit ñu ngi leen di nuyu eh, di ñaanal tamit ñëpp ñi nga xamante ni. dañoo tawat wala ñuy am loo xamante ni dañ koy jàmbat seen wàllu wér-gu-yaram yàlla na yàlla wéral leen ci kàttanam ak mbaaxam. Ibrahima Khalil wax ji bari ci li nga xamante ni moom ngeen di yëngatu coow li bari na naxaate bi bari na wuruj bi bari na njabar ji bari na ci donc ñu bari itam di ci yëngatu kenn xamul kat mooy kan kenn xamul lu lu waay ju ne di def ma bëggoon d'abord ñu waxtaan man ak yow ci. nan la sénégalais bi ñuy seetaan ci suñu site bii di nan la mën a màndargaale ni lii mooy médecine traditionnelle waaye bu islaam daganal salaaj laaj bi am na solo dañoo toll ci jamono boo xamante ni àdduna ni muy doxee doomu aadama di doxee noonu dafa laaj lépp lu ñuy dugg ñu formaliser ko normaliser ko mu am ay normes mu am ay règles yu nit ñi di jaar ñépp xam ni lii mooy lii malheureusement suñu réew ci secteur wàllu eh, médecine traditionnelle côté boobu daf cee sooxee bu baax a baax a baax loolu dafa waral xamatuñu ñi nga xamante ni ay naxaatikat lañ ak ñi nga xamante ni dañuy liggéey liggéey bu sell bariwaana ay dérapage yu ciy am li koy waral mooy ndax amuñu benn euh, réglement intérieur boo xamante ni moo ñu tënk xamuñu li lii mooy lii lii mooy lii ku mu neex day faqe fee ca làng ga day faqe ca làng ga ñëw ni day def nangam day def nangam day def nangam lan moo ko mën a tënk ba ñu mën a xàmmee ñi nga xamante ni war nañ leen mën a légaliser ñuy def lii ak ñuy def lii amaguñu loolu ba léegi donte kon ministère de la santé Euh, ñi ngi ci liggéey liggéey yu am solo waaye taxagul ba tey mu àgg fi nga xamante ni moom la war a àgg ba li ñu wuutalee ak ba li yeneen réew yi fi ñu àgg ci médecine traditionnelle ñu mën fa àgg raison pour la kel loola tax xeetu euh, kii dérapage bu nekk moom nga ci gis xamatuñu ñiy gàmm ak ñi rasté dem ñii dañuy naxaate ñii wut xaalis moo leen ci dugal ñii dañuy dugg ci njabar ñii di dugg ci leneen ñii di dugg ci leneen dafa dem sax ba ñu nekk ci secteur boo xamante ni xamootew luy ki njabar ak luy faj boo xamante ni faj bu dagat la sa laaj nag li gën a tax mu am solo mooy médecine islamique bi nga xamante moom nga laaj ngir tontu la ci loolu dama naan gis nga faj dafa mel ni lekk ak naan ak leneen gis nga lekk nit lu mu xiif xiif xiif teew dafa am lekk yu daggan am yu daganul faj tamit noonu la mel nit ki feebar daa am faju yu dagan mu jël ko am faj yoo xamante ne daganul mu jël ko loolu tax ñu indi ci baatu islamique lan lay signifier médecine bu dëppook leenu lislaam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni fatadaawu wala tatadaawu bil xaram faju leen waaye bu leen fajoo araam ah kon ndekete kon dafa am ay faj yu araam ab absolument dafa am ay faj yu araam faj ci ay xàmb dafa araam ay tuur ay gisaani ay seet takk ay gàllaaj ay boggalde di génne ay sarax ay sacrifice yooyu lislaam da ko xaramal ci ay textes yu leer ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere ko ba tax mu wax ni faju leen waaye bu leen fajoo lu araam suñu médecine islamique bii nag dañu ñëw ngir xamal nit ñi ni leen am na faj yu dagan yu mucc ayib yoo xamante nit ki dina ko faju ba mën a am wér yaramam te du dugg ci lu naqar yàlla loolu moo indi baatu islamique bi. léegi ma bëgg mu leer nañ parce que ki ñuy seetaan moom moo tax yow da yore ndox da yore sunguf da nga yore diw te ñi ngay wax ni ñoom ñooy def faj ba nga xamante ni njabarta ci laxas ñoom tamit moom lañu yor lan moo leen wuutale. li ñu wuutale mooy ñun suñu lépp lu ñu jël am nañ référence buñ ko teg ci alquran ak ci sunna. ndox yi nga seen ñu di ko yor di ko utiliser ndoxu zam-zam la bu ànd ak ndox ñu jàng ci alquran au coranisé la suñu pot yi nga gis ñu di ko yor dafa am ay plante médicinale naturelle bio yi nga xamante ni moom la ñu kiy jëfandikoo bii xam nga dafay ànd ak lem lem lay àndal am xabatu sooda mais aussi dañ koy di ki coraniser dañ ciy jàng ay ayat alquran euh, li tax nag ñuy wuute mooy forme bi ñu koy defee gis nga ñuy liggéey ci njabar ñoom dañuy liggéey ci wàllu rawaan di liggéey ci wàllu neexal jinne yi xëcc leen looloo tax da ngay dégg da ngay dégg ñu naan dañuy liggéey nàngam dañuy liggéey tur sàngam dañuy liggéey tur sàngam dañuy liggéey tur sàngam kiy faju bu ñëwee ci ñoom li ñu njëkk a def fexe xam ban xeetu jinne moo ko jàpp ñu ngi koy xam ci seen jumtuwaay ya ñu yor ñoom di ko jëfandikoo yooyu ñuy seete moo xam benn xeetu seet moom la doon ci ñi jëfandikoo moo xam ñiy tomb la wala ñiy yor ñiy rëdd la et cetera bu ñu ko jëfandikoo ba xam ban xeetu rab moo nekk ci nit ki ñu laaj ko la rab bi bëgg bu ñu ko xamee génneel ko ko sarax looloo tax dafa bokk ci li ñuy xàmmee ki njabar yi koo xamante ni nit ki bu dikkee ci moom rek dafa naan ko defal nangam defal nangam wala génneel sarax sàmma sarax sàmm sarax boobu mooy lan moom lay jege jinne ji wala rab ji nga xamante ni moo topp nit ki di ko sonal bu ko defee moom lay neexale loolu pour mu bàyyi ko te neexal googu dafa xaraam daganul ñuy neexal jinne daganul ñuy neexal jinne wala ñu di ko génneel sarax wala ñu di ko génneel benn sacrifice loolu la yàlla di wax ci alquran naa wa annahu kaana rijaalun min al insi yauduna bi rijaalin min al jinni fa zaaduhum rahaqan am na nit ñoo xamante ni dañuy dem di làqatu ci jinne yi mooy lan mooy di leen jéem a jige di leen génneel ay sacrifice di leen génne ay sarax waaye loolu ndax daf leen di may jàmm yàlla nee na déedéet fazaaduhum rahaqan lan la leen di dolli coono ak fër-fër kon loolu ñun moo wuutale suñu uti yi ñuy jëfandikoo ñun duñu dimbalikoo jinne duñu liggéeyloo jinne duñu liggéeyloo rawaan. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim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 la هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من léegi lam euh, su ma comprendre bu baax mooy daanaka ñiy faje ñoom ñoo gën a feebar ñi leen di seesi ci li nga bëgg a wax ci misaal ñaata laa fi am ñu ñëw fi ni ma ba ma demee ci diw sàngam diw sàngam diw sàngam dafa ni ma faaw nga ñëw ma tëddee la pour nga soog a wér walla faw nga jox ma nàngam loo xamante ni boo ko déggee faw nga indil ma deretu deretu mbërëg walla faw nga faw nga rey nàngam ak nàngam génne sacrifice yu demee noonu tey sikk sàkk nekkul ci ni loolu yaram doomu xelum doomu aadama rek waxuma la dara bu dul charia ak da xelum doomu adama sax dafa nanguwul xeetu pratique yooyu te ñooñu ñi ngi fi ñi ñi demee nii nag nekk ci dëkk bi bu ñu bëggee ñëw nii dañuy faj ñooñu ñoo gën a feebar ñañuy faj léegi bokk na ci liñ leen di tuumaal mooy sungu fi ngeen di yore ak ndox yeeg ñoom seen maanaam la ca médecine moderne mën la ca pharmacien ba mën maanaam xool dosage ba ne lii de baax na ci boo ko jëlee ñaar walla wala ñett ci fa ci bis bi du indi benn loraange maanaam benn effet secondaire ci sa yaram waaye yéen loolu mënu leen ko ndax jëlal kuddu nangam jëlal kuddu nangam te en tout cas amul benn euh, donnée scientifique buy waree ni lii lu baax la. Euh, laaj nga lu am solo mooy gis nga dafa am benn rivalité bu am entre médecine moderne ak médecine traditionnelle te man gisuma ni woon war naa demee noonu. ni mu waroon demee mooy dañoo waroon di mottalante boo gisee réew yi demee ni Chine Inde lu demee ni Ghana lu demee ni Côte d'Ivoire li tax seen médecine traditionnelle évoluer ba raw ñu fi ñu toll mooy lan dafa am benn euh, maanaam collaboration ak benn dimbalante boo xam ne dafa am ci diggante ñaari ki médecine yi fii nag malheureusement am na ci sax yenn feebar yoo xamante ni dañu koy jiñ naan tradipraticiens yi ñoo ko fi andi. te feebar yooyu bi mu fi tàmbalee am ak léegi mooy bi fi pharmacie yi amee bi pharmacie yi amee gis nga garab gu mu manti nekk nit ki bu ko jëlee ëppal ca mën na am mu andil ko ay loraange loolu tax kiy dem ci euh, tradipraticien wala kiy dem ci borom xam-xam ki nga xamante ni xam na li mu jàng jox ko kii garab ni ko boo demee jël ci nangam nangam jooju mu ko wax mooy dosage bi nit kenn ku ci nekk am na poids. am na poids am na âge kudd yooyu ñu yor dafa am ay grammes am na cinq gramme am na 10 gramme am na quinze grammes am na ci yoo xamante ni dañ koy waajal ba nga xam ne dosage bi ci war a nekk moo ci moo moo ci nekk bu demee nit ki daf koy jël noonu du ko indil benn ngaañ mais ñiy gaañu ci garab mooy dégg ñu ni nangam day faj nga dem ca marché ba walla nit ki romb la. jënd ko mi ngi mel ni mooy kuy jënd maanaam ci garabu garabu mbedd yi ñoom ñoo yem loolu nit ki mën na koo jël mu andil ko problème parce que daf koo jële fa mu ko waroon a jële gis nga nit ki lu muy fajoo dafa war a nekk lu wér dafa war a nekk lu tegu ci xam-xam bu leer naññ ñun nag loolu moo ñu fi bàyyi te ci loolu la ñuy liggéey li ñuy def alhamdulilah xam nañ ko jàng nañ ko fu ñu ko war a jànge norme yi mu war a àndal ñu ngi koy respecté euh, garab yi am na contrôle. am na hygiène am na lépp te amul benn ngaañ ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. bu ma comprendre bu baax mooy yow lépp looy def rek maanaam dangay am lu koy firndeel ci alxuraan ak ci sunna li ngay def nii yëpp ndax mën nga ma firndeel benn bu ne lii moom moo koy firndeel ci alxuraan ak lii moo koy firndeel ci sunna maanaam. Euh, parce que boo ma nee eau nga ne ma pommade coranisée nga ne ma sunguf ba nga xamante ni xëy na euh, ci wàllum islam tamit nangu ko lan moo koy firndeel bëgg naa xam firnde yi carrément. ci misaal euh, pour ma ñëw ci lem lem suñu borom subhaanahu wa taala moo ni wala euh, fiihi shifaa'un linnaas ci suuratu nahl lem day faj yonent bi sallallahu alayhi wa nit feebar na ñëw mu ni ko demal jël lem digal ko lem. yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci plante médicinale yi wax na ci xabatu sawda. ni shifaun li kulli daa illa saam day faj lépp ba mu des li nga xamante moom mooy dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël na ndox jox nit ni ko boo demee jëfandikoo ko yonent bi sallallahu alayhi wa nit feebar na ba ñu takk ko ni mu dikkee ci riwaaye yi nee nañ dafa romb di dem nekk ci waruwaayam benn jigéen taxawal ko mu taxaw ñëw nee bi mu dikkee mu ni ko sama doom jii de dafa feebar fekk na ñu ngi jéng doom ji ñu ngi ko jéng mooy maanaam ñu ngi ko chaîné tànk yi ak loxo yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw teg loxoom ci ci boppam daal ñaan bi mu ñaanee pare daal di ne uxruj ya aduwallah génnal yow noonu yàlla bi nee na bi mu waxee loolu fa ka annama nachata min iqaalihi nee dafa mel ni ku ñu yeewoon ba yiwi ko wa bada a yanzuru nazratana ki ko nettali nee na mu tàmbalee di xool xoolinu nit kon gis nga ruqya yi ñuy def loolu mooy cosaan bi mu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi loolu mën a mën ma permettre ma dugg ci yan jàngoro ngeen ciy faj yaa ngi wax ruqya maanaam bu ma bu comprendre bu baax kooku jinne moo ko jàppoon absolument yéen di faj wàllum jinne lan nan ngeen di fajee lépp lu jëm ci wàllum jinne te njabar du ci rax jamil jiddan laaj bi am na solo gis nga dafa am lu ñu tuddi an nushra nushra mooy nit ki ñu njabar ko mu dem ci beneen njabarkat ngir mu defaraatal ko ak njabar ngir njabar ga dañ ci moom gis nga loolu zulumaatun fawqa zulum ay lëndëm la yuy tegu ci kaw lëndëm nit ki nay faju di faju faju bu dagan faju bu dagan mooy gis nga ki nga xamee ne yow dañ koo njabar na fajoo alquran ju sell alquran ju wér faju bu dëppoog nu yonent bi sallallahu alayhi wa waaye dem ca njabar ya di làqu ci ñoom loolu feebar la koy dolli waaye du ko du ko defal ak wér te bari nañ ci ay kaa lool lool lool ba fii may waxee yow koo ñoo xamante ni buñ dikkee dañ ne dem naa ci diw sarax la ma digal dem naa ci diw euh, maanaam ci gàllaaj yi moo ma ko jox gis nga bu ma la indi woon la ma yor fee ci ay téere yoo xamante nit ñee ko fi bàyyi kenn xamul ki nu mu toll yoo xamante ni ay gàllaaj lañ leen di sëf sëf sëf ba ñu fees loolu coono la leen di dolli ak ay bàkkaar léegi beneen bi itam ci wàllum faiblesse sexuelle nekk jàngoro ji nga xamante ni daanaka góor ñu bari ñu ngi koy jàmbat mais pour yow lan moo koy waral lan moo tax tey nii parce que góor ñu bari di jàmbat euh, euh, feebar boobu. jërëjëf feebar boobu dafa doon feebaru jamono feebar bu tasaaroo lool nit ñi tamit di ko dund en secret sujet tabou la kenn nangu ci waxtaan loolu tax euh, vraiment da ngay gis ni feebaru askan bi la bokk na ci li koy waral manque hygiène de vie dund yi ñu dund baaxul dama koy wax bouillon yi ñuy lekk. ku ko ci bàyyiwul boo tëlewul tey di nga tële suba du ma tudd benn nag mais yëpp yam yëpp euh, ñu ci bari kii xam nañ loolu beneen bi ci des ay ay coono dina ko waral stress dina ko waral yenn feebar yi nit ki bu ko amee mën na waral ci moom ay faiblesse euh, ay tension ay diabète ay hémorroïdes ak yenn xeetu jàngoro yoo xamante ni nit ki bu ko amee day waral mu am faiblesse sexuelle donte kon tamit mën naa dab nit rek mën naa xëy xëy xëy rek nekk koo xam ne dafa euh, faible maanaam ci wàllu ci wàllu kii bokk na ci ni ko nit ki di xamee tamit ci moom euh, bu demee du mën a am satisfaction ci relation ki sexuelle du mën a am kii bu yàgg ñenn ñi une minute la ñuy def ñenn ñi ay trente secondes ñenn ñi sax dañ naan érection bu dëgër sax mënuñu ko am. te lii problème mu nit ñi. ci faiblesse xam nga xam nga mooy lan. Mm-hmm. mooy érection bu dëgër lañ dul am. te nag damay wax lu leer aphrodisiaque aphrodisiaque mooy xeetu aliment yi ñuy lekk daf ci am yoo xam ne day sawarloo góor yooyu du faj faiblesse yooyu du faj faiblesse faiblesse da ngay xool fa reen ba nekk nga faj ko nit ki ay siditam yeewe ko mu sawaraat delluwaat na mu meloon naturellement mais du aphrodisiaque moo koy moo koy faj. jërëjëf léegi ma bëggoon xam gannaaw faiblesse sexuelle gannaaw affaire jinne yenn yeneen feebar ngay faj. dañuy faj hémorroïde hémorroïde alhamdulilah. feebar yi tamit dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax dañ koy faj bari waa na ci ñu muy sonal lool dañuy faj hémorroïde dañuy faj asma asma feebar la buy wér day wér fii boog dafiy wéree waaw dañuy faj hémorroïde dañuy faj asma dañuy yëngatu ci wàllu hépatite dañ koy faj bu baax a baax wàllu siti dañ koy faj ak euh, yeneen xeetu jàngoro yoo xamante ni rawatina lu dem ci infertilité ñi nga xamante ni mënuñu am ak njaboot euh, moo xam ci ci ñaari côté yépp la moo xam ay góor la moo xam ay jigéen la ñenn ñi dañ fi ñëw naa ëmb naa sept fois avorté naa ay nangam yoon ñenn ñi ni mësuma am ëmb mais teewul ku ci jël sa traitement te respecté ko yàlla daf lay may jàmm may la njaboot. parce que loolu laa bëggoon xam parce que jàngoro yi nga xamante daanaka gën na sonal mooy wàllu faiblesse sexuelle. wàllum seytaane yi jinne yi nga xamante ni ñu ngi topp nit ñi ak euh, infirti infertilité ah, donc asthme itam ma bëggoon am ay exemple yu leer ah euh, est-ce que ci expérience bi nga am ndax mën nga mën naa tableel ñaata pourcentage nga faj ci ay nga xamante ne ab bi nga wax ma diw ak diw ak diw daan même bu fekkee tudd ay tur mais maanaam ay exemple yu leer yu mën a dalal sama xel ni lii daal lu wér la lu ñu fi mën a fajee fii la. Euh, exemple yi xam naa dina ma xaw a jaaxal ndax bari gu muy bari lu demee ni asma am naa ci ñoo xamante ni ren jii lañu dem màkk te li leen teewoon a dem euh, mooy maanaam nekk ay asthmatique yu sonn am naa ci koo xamante ni papa ji daf ko yóbbu hôpital ñu ni ko kii dafa asma. mu ñëw fii def traitement deux mois mu yóbbuwaat ko ñu ni ko kii amul trasu asma loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax beneen bi ci des hémorroïde nit yàgg na fee ñëw ni dañ may waaj a opéré damaa ragal diw moo mu jox sa numéro moo ma booleeg yow ñëw jël garab yi euh, une semaine affaire ba dañ mu dellu ci liggéeyam euh, beneen exemple estomac ulcère bariwaa na ko fi ñëw koo xamante ni benn yoon lay ñëw du dellu si waat sax ñenn ñi maa leen di woo pour suivre seen traitement ak seeni garab ñu ni ma non man matatul may ñëw ndax man wér naa loolu lépp tamit ñu ngi ciy sant yàlla ak yeneen xeetu feebar suñu garabu faiblesse yi tamit alhamdulilah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax yenn saa yi ma jox ko nit mu ñëw di ma tooñ ni ma ah soxna si nee na nga wàññi sa garab yi nee na nga wàññi dose bi <laughs> fii moom alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax suñu garab yàlla def na ci barke. te ay garab la yu am sécurité yenn yi fii ci réew mi lay jógee yenn yi bitim réew yenn yi ay garab yoo xamante ni Chine lay jógee te dañ koy utiliser partout ci àdduna bi ci réew yi gën a mag ci àdduna bi dañ koy utiliser di ci defar ay garab di ci defar ay euh, ay médicament bu ma déggee bu baax daanaka jàngoro yi nga fi jot wax ni yëpp moom ngeen da koy faj. mais li koy waral bokk na ci ba a fagu ak hygiène de vie ba nga xamante ne xëy na bu jaar yoon la ci wàllum lekk bi ak ci wàllum itam melokaan parce que buñ mënee affaire jinne itam lan moo koy waral di koy waral di indi ci nit ki souvent. jamil ji dan euh, euh, maanaam ci wàllu feebaru seytaan liñ ciy dénk nit ñi mooy nit ki na fexe ba euh, tënku ci tëral yi nga xamante ni charia moom la ko tëral na fonk ay julleem buy génn nay léemu. Euh, saa yu tëdd tamit nay nay léemu zikr yi mu a def ci suba gi ak ci ngoon gi na koy def faxe ba di di tardé waxtu julli bu dee ñu demee ni ki jigéen ñi ñuy fexe di sol sol gu jot moytu tamit yenn yenn place yi yenn ki lie yi nga xamante ni seytaane dañ fay faral di dem ndaxte ñoom ci lie yoo xam ne ay mbumbaay ay caaxaan a fay am dañ koy bëgg lool. bu dee lu jëm ci yeneen wàllu feebar yi euh, problème bi ñu am suñu réew mi mooy manque hygiène de vie. ñi ci bari dañuy lekk maanaam pour dund rek dañuy lekk pour dund rek mais lekk gi nga xamante ni moom lañ soxla ci seen yaram ci wàllu suayrat xaraariya loolu dafay manqué ci ñoom te loolu nag dafay feeñ ci ci dund gi dafay waral tamit feebar yi day bari day tasaaroo dañuy wax naan fexeel ba boo bëggee wér fexeel ba yow bul euh, bul lekk li nga xamante ni moo lay feebaral waaye li ngay lekk na nekk yow li lay faj maanaam looy lekk rek na fekk ni lii dafa am lu muy def ci yow waaye bul lekk rek ndax suur wala ndax neex wala ndax nangam bul def loolu beneen bi ci des tamit mooy dénkaane bu may dénkaane nit ki bu muy lekk te xiiful te buy lekk bu mu lekk ba suur këll ñaar yi nit ki bu koy def dina yéex a jënd ordonnance dina yéex a jënd ordonnance. Ibrahima jërëjëf. ok jërë ngeen jëf kon ñu ngi leen di tàggu yéen ñëpp. di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni dañoo tawat yàlla na leen yàlla saafara ci anamu wér ñi ngi leen di ñi ngi leen di béggee yéen ñëpp di kontaan ci yéen di leen ñaanal di sàkku ci yéen ay ñaan seen centre Darou Salam pour la médecine islamique traditionnelle yéen la fi nekkal askan wi la fi nekkal euh, bokk na ci li ñu dénk fexe leen ba nit ñu xam faj mu dagan di ko fajoo waaye fexe leen tamit ba sax ñi néew doole mënuñoo faju ngeen jàppale leen ñu mën a am seen wér yaram ci anam gi nga xamante ni moom la gën a mucc ayib wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.